ba tëggal sëriñ Tuubaa ki jox ma ab galan ma wuti ndandum cant ak galenu ngërëm ba sëriñ Tuubaa ki jox ma ab galan wutal na ma ndomba tànk dolli na ma ab galan te may na ma ak njariñ sant naa ko man ka koy bañ waaja koy ayibal du man te koy kay sikkal du man ku ko noonu bon ngërëm mi le moo gën mépp ngir ku ko wàcce bon ku wàcc ngërëm mi dal di jaamuy xëram xaran te yàlla ku bi yonent daala fi nekk kët te ñoo di sëriñ bi moo di ñoomit ku weddi fen li lee tax ku dikkul jox ko say mbir dangay xaran te doo ab sëriñ doo ceddo ngir ceddo yàlla gën sëriñ dëgg xam yàlla xam la def bu wér mu nangu ko dénkaane ay mbiram ay mbiram yewen taab yéefarit day nekk ci kéefaram bu wér de mooy mooy gu wér tey foo kay naana kay seben li lee di cëriñ moo di kéefar wéral xarit ku wér am lu wér toppal sëriñ bi moo fu man sëriñ boofu dégg ak boofu seeru du lëf mu man mosal bi sëriñ boo mos budul bi le mos fa murit yi mu àndal rekk ñoo gën sëriñ sëwën bu bis penc baa wax ji ñu xam ni ju wér ma gàddu bu wér man ba sama ndënd mi te kañ nag borom tuubaa ki xëy boole ñépp daan ba fóoree ki kaang ne jànga fi jariñ mu seexal ku jàngul aw araf ñu ni moo daan ba buur walaf ne lii yor ku ci bañ du wéy mu far teggi leen ak seeni ñu ni moo fi daan ba ñun yàlla nee nun bunti yàlla ya noo ko mu far dox fu kenn foogul ñu bokk ni moo fi daan ba buuri tubaabit nee nu masuwaa ji noo ci des mu yëmmu ni garfit yépp dem ñu ni moo fi daan mu xëy diglu déggul fenn koy baj bajee ka bañ mu ñibbi këram ndaanaana nguugulu yàgga daan